war nga mën a jël micro nga décortiquer wala nga analyser combat am nga ci kàddu liiru bisu le 28 Forza Pakala maa ngi ñëpp Modou Mbaye maa leen nuyu di leen ziar di nuyu ñi ci plateau bi champion yi nekk ci plateau bi yëpp mm. su ma jaaree seen tur rek damay juum damay commencé ci Papa Gaston Mbengue yàlla na ko fi yàgg yàlla yàggal te may ko wér ndax tey soo nee làmb da nga naan Gaston Mbengue ndax tubaari kàlla masàllaa tey ba mu bàyyee làmb am na nu làmb demee woon ba mu ñëwaatee gis nga làmb ji ni mu demee kon na nan ko fi ñaanal mu yàgg fi te wér suñu amoon fukki mel ni Gaston Mbengue tubaarikàlla macha allah kon xale <laughs> allah lu ne def na ko ci làmb ji tëgg na sunu papa yi tëgg na sunu maam yi yàlla na ko fi yàlla yàggal ba mu tëgg sëtam yi ba mu tëgg sëtam yi comprendre nga Modou yàlla na ko fi yàlla yàggal waaw di ñaanal makkan tamit relève bi tubaarikàlla yàlla na jëm kanam at làmmeñ ndax xale nga da ngaa nekk si yoon waaw di ma Modou bala maa ñëw ci li ma bëgg a laaj ci combat bi dafa am lu ma bëgg a wax autorité Guédiawaye yi ndax man Guédiawaye laa am fa dëkk mooy sama chef maa monument Guédiawaye xale yi fa nekk maay seen mag damaa bëgg autorité yi nekk Guédiawaye yëpp ñu ñëw jënd bi jàppale Alioune Seye 2 ndax tubaarikàlla macha allah lu ne def na ko ci làmb te dafa nekk ay moroomam dafa nekk ay moroomam ci làmb ji te tey heure bi war na ko fekk mu dépassé fii bu yàgg ndax je connais Alioune Seye 2 comprendre nga dama bëgg autorité nekk géej billaahi wallaahi taala autorité bu ñëwul bu ko jëlal billet bu ko jàppalewul maak moom la du maa du moom man moog moom moom mii la man maa la wax lii ma autorité nekk géej wa yëpp rek laa su ma limee damay juum waaw ci combat bi nga may laaj kii combat bi nga may laaj combat euh, pakala forza tubaarikàlla masàllaa ñoom ñaar ñaari ndaanaan lanu gis nga seen combat bu njëkk ba kees na mu demee mm. forza ku ne xam na ko kuy bëreeg moom di nga ñam waaw way ah way ah, ah, non non non du caaxaan te dama koo gis dama koo suivre kuy bëre ak moom da ñam kii nag ndaanaan la bërekat la bërekat la ndax tàkkusaan bu ne am na ko fi ci làmb première défaite am Abdou Diouf moo ko jox man maa la wax lii. waaw ndaanaan la bërekat la. Mhm. kuy sooba yàlla làmb ja dana laa la wax. combat boobu ngay wax tubaarkàlla grand komba bi ñi combat bii nag foo ko bàyyi day neex ndax kii dafa ne kii mag la kii waxul benn xale bàyyi naa la ak yàlla soo ko xoolee xam ni liggéey na. Mhm. te kii tamit dafa jóge ci defet moo tax combat bi dina neex Alioune Seye Zoss tam tubaarkàll ndax moom nee na dafa ñëwaat te nee na du mag xale la kii tubaarkàll macha allah xam naa ko soo ko ne train bi bu neex la man maa ko wax combat bu neex la billaahi wallaahi taala combat bu neex la ndax kii dafa am ñam na ko am na lu mu ñam laa mujj dafa neex ku ko fase di ko baara sëw di <laughs> ah way ah. waaw demoon na ñëwaat na moo tax ah. laa mujj day neex te kii tamit xam na fu mu teg bëtam doful soo doful ñaar ñii ñaar ñii pakala forza yàlla na yàlla fal cat. yaakaar nga si yaakaar yaakaar nga si kaaw. si. mën na mën na si am mën na am kay. waaw waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf jëf kontaan nañ ci moom <laughs> kontaan nañ ci moom jërëjëf eh, sama nijaay Abdou Lahad jëlal micro bi jërëjëf kontaan nañ ci moom bu baax a baax balaa ñuy jox waaw loolu yëpp ñun dinañ ko am dinañ am temps bi jeexagul wallaahi di nga am temps wax ko mais dañuy jox sunu frères yi nga xamante ni ñu ngi fi di ay journalistes ñu poser question mbër yu mag yi wala ñi war a bëree combat bu mag bi ñu ñu ñu ñu avancé journalistes yi ku ci am question ñu jox ko micro bi mu jug présenté wu jug taxaw da ngay jug taxaw da ngay dénkaane machine bi nga jug taxaw caméra yi mën laa jël ñu gis la voilà très bien yow lu tax saa yu ñu dajee xuloo waaw loolu am na da nga nekk nit ku baax rek moo tax <laughs> maa ngi nuyu assistance bi yëpp Papa Djibril gay la suuf saa bon tey ñu ngi dégg Macky Sall di wax affaire passe sanitaire ne mun na am ñu accept ko accepté ko ci stade yi wala si euh, université yi. Hmm. donc je pense damay laajte nag bon tout à l'heure Makan a beaucoup insisté sur la vaccination. may laajte nag ndax dañuy jëm foofu wala ci passe sanitaire wala. ci pour pour accéder ci biir stade yi. waaw. Euh, beneen question bi mooy kii la euh, Forza laa koy laaj. Mhm. pour introduire ko tout à l'heure parce que euh, revanche dafa métti. Mhm. may laaj ndax moom day dem jëli wala day xaar merci beaucoup. merci question boobu am na importance Père Gasson yaakaar naa ne mooy tontu pour passe sanitaire yi Père Gasson. waaw passe sanitaire yi li ñu ciy tontu daal mooy ñun ñu ngi déglu état rek instruction bu autorité yi joxe rek. ok. ñun dañ ciy topp. incha allah nu ñu nee tëj leen danoo tëj. la suñ nee euh, distanciation kooku moom même suñ ko waxul ñun danañ ko def passe sanitaire bi suñ ko exiger it de façon ñëpp presque Sénégal nit ñaa ngi vacciné wu. te surtout nitu làmb yi ñoom ñu ngi ci vaccination bi bu baax. Mhm. loolu kon ñun xalaatuñ ko. mais daal lu autorité yi wax parce que nag ñoom la ñu dénk réew mi suñu demoon bay arrêté sifflé sax ñu nu arrêté leen ñu arrêté. macha allah donc ñun. respect rek la ñuy am ci autorité yi. macha allah ci autorité euh, président de la république ak ci le ministre la santé li ñu ci wax rek moom la ñuy def. macha allah loolu moom amul problème. amul benn problème amul euh, bu ñu ci bu ñu xalaat dara. Euh, ñu dem ba ca kanam rek xëy na lu ma fàtte woon danaa ko fàttaliku. incha allah ci kanam dinañ ko fàttaliku Karajo maa ngi lay dégg waaw non baar first class fi mu génn ak man tey loolu ci kanam tout laa bëgg ñëw ndax sama xarit bi ma dendal dëgg la sax giri la sañ mais maa ngi koy bëgg amul benn problème maa ngi koy ah, gaynde wax leen maa ngi koy bëgg a rey wala bëgguma koo rey maa ngi koy bëgg a rey léegi ci kat non maa ngi lay bëgg a rey am problème bu fi xaali toogoon sax ñu execo masinil ndax sam partenaire la Forza revanche la wax ngay jëli dafa ni revanche ngay bëree waat ndax da ngay dem jëli wala da ngay xaar. bu dul revanche sax dama koy jëli Forza amul ku muy xaar. ba tey man damay continuer question bi ñu def ko débat ah? jëli ku mel ni kii tamit sëñ bi. waaye Pakala moom si boppam xam na ne du sans sans sans mu def ay pexe yi muy def mu wiiri wiiri xelu nit ñi mais man xam naa li muy def day ñëw man duma ko xar dama koy yombalal si kawam laa jëm ci kàttanu borom bi. Paka. waaw bu ñëwee lu mu fa fekk rek baax na na <laughs> ñëw.